waaw liñ ci mën a jàpp jamono yi mooy patrimoine bâti taxaw na taxaw ci vision président la république defal Sénégal administration boo xam ne association bu mujj ayib la fan yii rek maa ngi demoon euh, di visiter cité des nations unies muy loo xam ne lu ñu jagleel la 32 organisation de nations unies yoo xam ne dañu war nekk Sénégal ñu dugal leen fi gis nga sphère ministère yi li jam ñaajoo ñu ngi am quinze ministères donc maanaam patrimoine bâti taxaw na ci jëmmal ak dundal ak defal germe de vie lu Diamniadio commune de Gandiaye waaw mbas mi li ñu ciy wax rek mooy euh, troisième vague bi nañu wax ne dafa ñëw ñu ci recommandé nag bu ñu defee nañu defoon donc dinañ mën a xeex mbas mi ba nga xam ne troisième vague bi du ñu yóbbu maanaam respecter mesures barrières yi dem aussi vacciné wu ndax vaccin moo ciy génnee moo ci génnee réew yu bëri te gouvernement mi góorgóorlu pour kër sénégalais bu ne war a mun a jot ci vaccin yi ba nga xam ne ah li ñu daloon daaw dal ñu ren bala ñuy yegg déwén incha allah mbas mi dina nekk loo xam ne dina nekk suñu ginnaaw.